jërëjëf maam Khary Diéry Fall ci xibaaru marax yooyu la mbokk yéen itam jërë ngeen jëf ci topp geeg teelu bi la voix des sans voix Walfadjri euh, ñu ñëw ak yéen ci seen émission l' édition du soir édition du soir tey di alxamis euh, 2024 euh, Ayoba Faye lañ ci àndal Ayoba ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Issa di am bu baax teewaat fii ci plateau édition du soir ak suñu invité di ko nuyu bu baax. suñu invité tey di baara Diouf baara Diouf euh, moo jiite euh, moo di délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose nekk itam secretaire général par intérim bu MRDS Bara ñoo ngi leen nuyu. jërëjëf Issa maa ngi lay fay di nuyu mbokk yi nga xamante ne moom lañ bokkal plateau bi Ayoba di nuyu mbokk yi ñuy seetaan à travers la Walfadjri TV bi mu wax ñoom ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ñu di leen nuyu baax a baax ñoom ñi nga xam ne ñu ngi suivre à travers nos différentes plateformes mu di Facebook ak YouTube rawatina ñu nekkee hors du Sénégal mu di la diaspora baara euh, ñenn ñi dañuy wax sax ne teel na ñuy def bilan wu régime ci euh, téeméeri fan waaye nag mën nañoo xool itam jéego yi nga xam ne rek jot nañ koo teg euh, ba ñu dooree ak léegi ndax lu xel mën a nangu la jàpp que ni itam dina am liñ ci doon yaakaar dañuy dooree pour faire bilan. mooy li nga xam ne opposition bi ñu bëree bëri moom la ñuy gis ñu di ci euh, téye carrément muy duo bi nga xam ne moo am euh, muy Sonko ak Diomaye ndax Diomaye dafa toog fal euh, premier ministre Ousmane Sonko après ci doxalin wi li ñuy jàpp ñoom waa opposition mooy que ni Sonko daf ci fës trop est-ce que même avis ngeen di partager yéen ñu bokk ci gouvernement bi. waa jërëjëf Issa fi nga commencé fa lay tàmbalee mooy waxu 100 jours yi ñuy wax ne nañu def bilan wu 100 bon wax jooju ñun ñëpp xam nañ ne euh, États-Unis la jóge euh, Roosevelt bi mu ñëwaatee au pouvoir en 1933 moo digg woon ne ci 100 jours dina def li ak lii boobu ba léegi ñun dañoo hérité wax jooju waxu 100 jour donc 100 jours mooy ñetti weer donc mois. 3 mois yi nga xam ne président Bassirou Diomaye fay def na ko ci ci bopp réew mi trois mois yoo xamante ne dëkk bi dafa dal. Mm-hmm. Eh, ñun ñëpp xam nañ ne Sénégal jógoon na situation yoo xamante ne situation yu metti woon la trois mois yooyu dëkk bi dafa dal ñuy sénégalais yi jógaat yëgaat jàmm réew mi ñu ñu xam nañ Sénégal nekkaat na réew jàmm rekk na réew teranga nit ñi di doxi seeni soxla di nekk ci seeni activité trois mois yoo xamante ne euh, nguur gi fi passé bi ñu fiy jógee waxoon nañ sénégalais ne buñ falee ñeneen amaana duñ mën sax fay salaire mais romb nañ fay salaire. ci trois mois yi fay nañ bor bi nga xamante ne amaloon nañ ko ci wàllu campagne agricole bi ñëpp gis nañ ko fay nañ bor bi nga xamante ne amaloon nañ ko hôpitaux yi ci wàllu CMU bi ñëpp gis nañ ko fay nañ bor bi nga xamante amaloon nañ ko étudiants yi ñëpp gis nañ ko commencé nañ aussi di fay la dette intérieure donc ñëpp gis nañ ne trois mois yi trois mois de stabilité la mais trois mois yoo xamante ne trois mois pour installer une administration la. waay mais ñu ci Ousmane Sonko euh, Diomaye par rapport ak ni ñuy gérer parce que Ousmane Sonko. liñ ko ay détracteur am di ak di reproché mooy que nii dafa fës trop le président daanaka kële li muy faral di génn wala liñ koy gis euh, ci euh, au manœuvre moo gën a bari. waaw xam nga euh, critique bi ñuy defal régime bi bu nekk dafay wane niveau bi opposition bi toll. xam nga bu fekkoon opposition bi parce que en plus sax doon na opposition bi parce que ñi nga xamante ne ñooy dëgg-dëgg vrai vrai opposition bi ñoom xam nañ ne euh, trois mois lañ nekk si temps wu installé un régime lañ nekk te xam nañ ne fi ñu teg suñu tànk foofu baax na moo tax déggoo leen ñi demoon présidentiel am une représentativité déggoo leen. ñi ah. nekk ñi di wax dëgg-dëgg ay nit la ñoo xamante ne pour la plupart boo bu ñu interroger woon euh, seen seen histoire politique di nga xamante ne euh, ay nains politique lañu plutôt que ay ay ay vrais opposants mais li nga xam ne moo am mënoo ko génne opposition Thierno Alassane Sall gi dégg nañu Abdou Latif Coulibaly génn na wax euh, gis nañu ak ñeneen ki nga xam ne sax moo yore woon daanaka kàddu gouvernement bi di yore jaab fan yëpp mi ngi génn di wax Thierno Bocoum. non xam nga xam nga bëgguma bëgguma bëgguma bëgguma bëgguma personnaliser débat bi. mais. damay ñëw ñëw fi nga fi nga njëkk a waxee. mooy le président de la république Bassirou Diomaye fay bi ñu ko falee mu nekk président de la république euh, am. légitimité bi nga xamante ne moom la président war a am parce qu'il est élu en étant de l'opposition au premier tour à cinquante cinq pour cent am légalité bi nga xamante ne président da ko am mu nekk ku ñu xam ne dañ ko fal ci élection bu amul benn contestation am popularité bi nga xamante ne un président daf ko war a am ndaxte lépp lu mu yëkkati Sénégal yi dañ ci ànd ak moom moom moo fal le premier ministre Ousmane Sonko jox ko l'action président premier ministre Ousmane Sonko war a nekk un homme d'action premier ministre nekk Ousmane Sonko nekk un homme lii gars yi doon yaakaar mooy ne action bi doon na yéex. gis nañ ne action bi gën na gaaw temps bi nga xamante ne moo waroon nekk temps bu ñu war a installé wu parce que bu ñu fàttaliku ñun bi ñu jël pouvoir bi. gouvernement bi ñu fekkoon 37 ministres la woon. aujourd'hui on a un gouvernement de 25 ministres. gouvernement wu 25 ministres yooyu am na ay portefeuille ministériel yoo xam ne dañ leen dajale boole leen def leen benn portefeuille ministériel ñooñu ñu déployer wu mën a dox li nga xamante ne moom lañ ko war a dox nga mën a installé direction yi nga xamante ne dañoo nekkoon ci ministère bi nga war leen jëlee ci ministère bële loolu mooy day jël temps mais malgré ça ñu ngi def ay résultats tey jii boo jëlee euh, ku mel ni ministère du sport des culture ak euh, jeunesse plus trois ministères la woon ñu boole ko benn. à contrario aussi am na lu mel ni enseignement supérieur éducation nationale benn ministère la woon ñu tas ko. tey jii gis nga les résultat yi nga xamante ne ministère dañ koy def donc képp ku taxaw man nga gis ne le gouvernement sur trois premiers mois yi dafa nekk sur des questions d'urgence moom mooy jubbanti. beneen bi mooy gouvernement bi si jëm boppam ak taxawaay bi nga xamante ne na ko mais bu ma bi du ma ministre rek mais l'ensemble de nga xamante ne mooy administration bi nga mm-hmm. xamante ñu ngi koy installé à travers les directions nationales gis nañ ne ñëpp ñu ngi nekk si jubal. amul fi scandale amul fi dara loo xamante ne euh, euh, euh, gis nañ ko fi leneen li nag mooy dañoo nekk ci position jubbanti jubbanti mooy taxaw càmbar booy soog a ñëw di nga ñëw taxaw càmbar. def état des lancé ay audit audit yooyu am na si yu pare am na si yu yu yoo xam ne c'est en cours te gis nañ situation bi nga xamante ne réew mi nekk na ci léegi. dinañ dinañ ñëw ci ci ci euh, kii yooyu noonu point yooyu muy audit yeeg ñoom seen mais euh, pour résumer ci côté euh, Ousmane Sonko ak li opposition bi di wax ça vous dérange pas quand même te jàpp ngeen que ni c'est la bonne formule mooy ngeen am premier ministre bu mel ni moom muy nekk di di doxal yu ci bare bare ak la coordination de l'action gouvernementale. xam nga xam nga xam nga booy natt booy natt impact euh, euh, euh, politique gouvernementale da nga koy xool ci niveau d'adhésion de la population par rapport à cette politique là fii lu fi président yëkkati premier ministre jëmmal ko population yi ñu ngi taxaw ci ginnaaw. moo tax boo ne ma li opposition bi di wax dama ne la ñi ngay wax en fait en réalité ils ne sont pas assez représentatifs dans l'opposition parce que bu ñu delloo dans la réalité des des des choses bon ñi ngay wax je donne simple euh, Bougane Gueye Dany par exemple pour ne pas le nommer lenn la am mooy il a média bu fekkoon Sénégal autorité de régulation des médias doon na jox le temps de parole imparti à chaque parti politique en fonction des résultats des élections yi passées gëwuma ne couverture médiatique bi bu Bougane Gueye Dany am dans son média dina nekk couverture bu mu war a am te Bougane Gueye Dany il est dans la dans le champ politique depuis 2018 ou 2019 benn yoon la mos a am élection élection locale am. là où c'est là où c'est le le le le le le le l'élu a eu plus de 5000 voix c'est un sénégalais moo tax ñu mën ko déglu mais dañ koy déglu delloo waxam ci proportion ba mu ba mu ba mu toll bu fekkoon ne. un des leaders de l'opposition mooy ñi nga xamante ne lors des élections présidentielles ils sont arrivés premier deuxième ils sont arrivés deuxième troisième ou quatrième ñoom ñoo wax. dinañ xam ne ah ñii nag ay nit la ñoo xamante ne am na Sénégalais yu bari yu leen wóolu woon. mais aujourd'hui waxu Bougane boo ko jëlee si. mbir mi si forme bi baaxul si fond bi amul xam-xam xam-xamewul ndaxte wax ji amul xam-xam nga ku toog ne ay nit ñu toog ne euh, euh, Ousmane Sonko matul matul premier ministre loolu amul xam-xam loolu sénégalais xam nañ ne du lu méngoog xam-xam maintenant li ma doon wax sànq mooy mhm. tey jii li ñu sénégalais yu won mooy fépp foo xamante ne le gouvernement xëcc na dem fa sénégalais yi topp nañ ko fa. da ngeen dem audition populaire dinañ ci ñëw ci euh, réalisation yooyu benn par benn ci li nga xam ne moom ngeen jot a def Ayoba 100 jours après euh, ginnaaw bu ñu amaat amee un président ñu fal ko premier tour euh, un opposant c'est une première au muy yoon bu njëkk li nga xam ne dañ koy faral di dégg ci la ñuy dooree d'abord mooy li ñu gis faruñu ko woon di nemmeeku un premier ministre boo xam ne jox nañ ko doole l'opposant Bassirou Diomaye fay Faye annoncé woon na ko déjà que ni dafa bëgg ñu wàññi pouvoir président parce que le président est hyper premier ministre ñu gën ko jëmmal ci réew mi def na ko selon vous ndax dafa war a gêner Ousmane Sonko ni muy gérer nii wala pour yow c'est une bonne formule. en fait suñ ko présenter noonu Sénégalais yi dañuy tronqué réalité bi. Ouais. Euh, parce que mënoo ko présenter rek ci contexte bu ñëw nañ euh, pouvoir euh, ba élire Bassirou Diomaye fay président mu nommé Ousmane Sonko premier ministre. y a des y a des y yoo xamante ni loolu moo jiitu loolu. boo koy analyser da ngay englober yëpp précédent bi mooy dañoo dem ci élection boo xamante ni. sénégalais yi nga xamante